dama am feew benn feew bu ma def mhm. muy bët mhm. wante lu ne maa ko ciy def mais dama am problème boo xam ne ak tamit sama famille ndaxte sama yaay nangu maa jàppale benn lan mooy pro lan mooy problème bi ba sa yaay mun la jàppale pour nga dem faju ji ah man xaw ma sax ndax moom kuy ànd man day bañ te euh, defuma ko dara waxuma ko dara sama ko xee yaay kañ ànd ak man ma dem faju danaan déedéet te ku ñëw may ma xaalis da koy ko man duma gis dara yow soo ñëwaatee mu ne la defal naa la lii defal naa la te fekk man loolu deful dara man damaa maa ngi nekk xale ba léegi xaw ma sama papa. loolu naka la demee. Hmm? expliqué ma loolu naka la demee. waa ndax man xaw ma sax côté boobu ni mu demee parce que man dama sama yaay yaruma après ba fi ñëwee laa xam ne mooy sama ma toog si wetam mais teewul maa ngi doon jàng mais mu teewumaa jàng école ndaxte defaruma ay papier aw ma ay papier laa bàyyi dem jàngi salon di jàngi arab mais teewul dama doon liggéey bale fobeere di amal sama bopp mu mën a defal sama bopp parce que moom du ma defaral dara te man su ma waxee ana may wax ma métti li ma man doom doom baadoona la du ma tekki dara ba ma feebaree loolu daf may ñaanal di ma wër di ma mos a wër te man di ma ko def dara te kuy ñëw di ma jàppale da lay wax ni kii sa alal ci moom ndaxte du mos a wër du am dara. yow sa sa yaay ak sa papa dañ doon sëy. sama yaay ak sama papa ah man ni ma ko déggee nee nañ ma mosuñoo sëy. ok léegi loolu moo tax peut-être sa yaay boo ko waxee boo koy laaj sa papa du la ci wax dara. waaw du ma wax dara pare may wax lu ma damay toog di jooy pare naa trop sama côté. sa yaay da sa yaay da lay lay da lay faral di la dóor wala bu lay traité de nit ku bon ak affaire yooyu noonu. waaw yooyu yëpp dama koy wax yooyu dama koy wax suy jóg di ma dóor dañ koy wax ne bu ko dóor ndax sama magam magam moom moo ma doon jàppale bu mu ñëwee Sénégal moom dafa dellu sax ndax lu ma doon def lu metti ba pare kooku moo ma daan yóbbu may dem faju di moo ma daan yónnee xaalis mais fan yi corona moo tax te moom léegi mag la moo tax mais sama yaay mooy sama problème instant yi ndaxte ku ma ñëw di jàppale day bañ te man damaa sonn te man xale laa mënumaa defal dara sama bopp. yow yow ak sa yaay yéen bokk benn kër. ñoo benn ñoo bokk benn kër wante bokk ñu léegi ndaxte daf maa génnee woon ci néegam. daf laa génnee woon ci néegam. instant bii waaw génne na ma woon sax kër gi. wante ay mbokkam ñoo wax. mu andiwaan ñu andiwaan ma ci kër ga. mais man nekkuma ci néegam. léegi sama beneen néegu yaay. d' accord léegi yow euh, problème bi la boole ak sa yaay carrément yow li nga ci li nga ci li nga ci xam lan la. ah sama yaay sama problème ak moom mooy. man su ma ko man bëgg naa xam sama papa. ak parce que daf may toroxal te naa koo laaj sama papa su ma ko laajee daf may toroxal ñemeetuma kaa su ma fee sama bopp yi metti sax ñemeetuma jaakaar ak moom wax ko ñemewuma wax kenn sama bopp yi metti su dul sama benn xarit xanaa sa yaay dafa am yeneen doom sama yaay am na yeneen doom ak beneen jëkkër am na yeneen doom ak am na jëkkëram nii nii dafa dem fi jëkkëram bàyyi ma ci kër du wax ak man du ma tudd man tamit su ma ñëwee pour di dem si moom du ma faale léegi dem yoonam man man daal damaa nekk si kër ga rek mel ni ak jàmm. ok te te yow problème bi mooy yow say say mbokku papa amul kenn koo xamante ne xam nga ko. sama mbokku papa amul kenn koo xam ne xam naa ko. mais moom dama koy laaj moom du ma wax dara. parce que danaan man naa ko wëri te man xaw ma musuma ko gis. danaan la boo ko laajee sa papa danaan la demal nga wëril ko sa bopp. dama koy defar defar ma sama papier mu naan ma dama nga defar ko sama. moom mosu la wax sax sa papa nan la tudd. mosu la ma wax nee na ma Baata Sarr te moom waxuma ko sax. sama benn tonton moom ak damaa dem ci moom fekk moom dem na ci moom naan ka xale bi wëli nii wëli naa wëli du ma dégg ne ma def dara te yàlla xam na ni man damaa noppi du ma wax dara lu ma def damay toog noppi kenn mësu koo xam ma dem ba sonn nag ma leen man sonn naa ci laay soog a toog ñoo xam ne mu ut ñoo xam ne dañ ñoo jàppale ma toog di leen ko wax pour ñu mën maa jàpp. ok mu ne ñu ñu wax la ne la sa papa Pathé Sarr la tudd waxuñu la fan la dëkkoon. Ah, ma sama yaay rek moom mun a wax sama yaay boo ko laajee mun na la xaw ma dañoo bëri. waaw léegi yow léegi yow amoo ay nijaay maanaam sa yaay ay magam wala ay rakam pour nga dem si ñoom waxtaan ak ñoom par rapport ak li ngay li la li la la dundaloo. loolu yëpp ñoom ñëpp xam nañ ko waa duñ ñemee wax parce ma yàq léegi yow li la euh, li dal noonu sa bët yooyu noonu nga ne daf la dab euh, dafa jékki-jékki rek di métti wala dafa am lu ñu la def ba muy métti. ah man moom balaa mu ñëw si man dama koo gént comme mercredi laa ko gént lundi ma xëy bi jàppama ba si di metti ngay dem hôpital dem di dem di dem di dem dañuy opéré mais gisuñu dara après ñoom docteur yi ñoo ni yow dama consobu ci ndax amul rucci rax ci laa dem ñu ne ma lii def def la après man gëwma taxul gëm ma demaat ñu waxaan ma même chose mais man awma ci pexe ndax sama yaay après du nangu ànd ak man léegi yow lan nga jàpp ne kon moom moo nekk sa bët puisque gaañu woo ci nga dang ko gént rek nga xëy suba mu sa bët yi muuru man musuma musuma foogee ne man dinaa ko am ndax parce que man mosuma woon jàmm sax bopp bi metti lu jëm ci côté bët bee lan lañ la wax. ma dañ def def la mais fi nga gi nga nekk nga jóge fa sinon te man ama tamit fu may dem pour wër te sama yaay du ànd ak man sax ci affaire yooyu sama tante bii dem Mourtani laa daan ànd bu ma demee ba léegi sama yaay du nangu sax ma ànd ak yéen te moom kooku bu ma daan jëm bu suñu xuloo lay doon ci kër gi kooku du faale sax bu kooku nu mu nitee kooku moom moo tax kooku nit voilà léegi yow sa jëkkëru yaay bi nga xamante ne ni mi ngi ci kër gi est-ce que yow euh, euh, waxtaan nga seeg moom. ñoom ñëpp toog naa wax ak ñoom. mais ñoom mënuñu see wax dara. parce que mère bi moo tax ñoom mënuñu see wax dara. ma ne man nag bés bu amee fu may dem dinaa dem te doo leen ma gis te ndax sonn na. instant bii nii sa yaay moom moo lay jox lekk ak naan. saa yaay déedéet jox lekk du jox naan. bu xëyee dina la xool ci lan ngay nekk ak yooyu boo feebaree dina la jéem a di la masawu sax même bu fekkee amul lu mu la faje sama yaay du dara man maa defal la sama bopp yi su bëggee damay wax sama xarit yi ñu may ma mu fóotal sama bopp. waaw ku ma ku ma mën a jàppale rek maa ngi ñaan mu jàppale ma. d'accord merci beaucoup. merci merci.